yéenekaay gi nee na Bill Clinton moom dem ak secrétaire u Maison Blanche doon nañu ko tuumaal lu jëm ci wàllu woowu coow li bëri woon na lool ci àdduna bi lëmbaaji réew mi yéenekaay gi di réew mi ko quotidien nee na Jombas Diaw moom dem fii ci Sénégal filmé woon nañ ko jël vidéo bi na ko wàng te loolee bëri na lu mu ko yàqaloon ci lu jëm ci wàllum politique yéenekaay gi nee na du Sénégal ak ci Amérique ak ci France rek ndax ci Italie ab Berlusconi kookee moom tim doon nañ ko tuumaal ci lu jëm ci ab mineur boo xam ne yeggoon na ci kawama Yaya Jammeh moom tim lu mel noonee tuumaloon nañ ko ko yéenekaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy homme politique yi dañoo yor ñaar ñaar yoo xam ne dafa intéressé ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ndax nag moom jigéen xaalis ak pouvoir te loolee ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum politique amee nañu ko yéen a kaay gi nee na bi ci mujj nag mooy Ousmane Sonko njiitul Pastef mi nga xam ne jamono ji maanaam ñoo ngi koy tuumaal ci lu jëm ci wàllum viol la yéen a kaay xëy na ci ñi nga xam ne ñooy sécurité du système des nations unies ñoom nag ñoo ngi alerté nee nañu nag boo moytuwulee ay manifestation dina am ci centre ville ci maanaam biir xolu Ndakaaru tax ñoom nations unies daal ñoo ngi alerté ñi nga xam ne ñooy seeni ñooñ ambassade bu France ñoom tim ñoo ngi woo ñi nga xam ne ñooy ressortissants français yi ngir nag ñu moytul li nga xam ne moo wër assemblée nationale moytu ko te nag bépp déplacement boo xam ne maanaam jëru ko jërul ñu koy def ndax ñoom jàpp nañu ne maanaam fitna mën a am ci xolum Dakar yéen a kaay du source a nee na Ousmane Sonko lii nga xam ne moom la ñu koy tuumaal ana lan moo ko ci mana a fekk bu jàkkaarloo ak juge d'instruction bi journal bi nee na juge d'instruction bi bu xoolee dossier bi mën naa jël Ousmane Sonko mandat ko dépôt bu ko mandat dépôt nag mën naa toog ay ati at moom Ousmane Sonko te kenn du ko te surnal bi nee na juge d'instruction bi am na yenn dossier yoo xam ne su la mandat dépôt day toog lu tollu ci juróom benn ci ay weer def ay investigation waaye nag su dee dafa jëm ci lu soxal wàllum viol maanaam nag loole moom investigation yi amut ab àpp mën ngaa tëdd du toll ci ay at yu bare bari te kenn du la atte yéen kaay gi du l'observateur nee na Ousmane Sonko maanaam naïveté ci boppam moo ko jàpp wala nag dañu ko complot yéen kaay gi de libération nee na mbir mi nag am na lu garaaw a garaaw loo xam ne daan na si ama ndeke xale bu jigéen bi ba mu jugee ca salon de passage boobee benn waay bu ñuy wax Sidi Ahmed Mbaye moo ko fa jëlee te Sidi Ahmed Mbaye moomee maanaam doomu responsable bu mag a mag a mag bu nekk ci biir APR maanaam moo jëli xale bu jigéen bi Adja Sarr ca salon ba moom Sidi Ahmed Mbaye moomee nag section de recherche baan déglu na ko ba ñu ko dégloo nag la mu wax nee na moom ak Adja saar maanaam yàgg nañu lool ay xarit lañ te moom nag daan nay dëggal ne moo jëlee Adja Sarr ca fa nga xam ne mooy salon ba ñu tuumalee Ousmane Sonko ñi nga xam ne nag ñooy avocat yi Ousmane Sonko yi ñoom nag génn nañ ay càkkutéef ci Moustapha Niass mi nga moo war a doxal lu jëm ci simi malaanu kiraayu Ousmane Sonko yéenekaay gi de L'As ñoom waa Y'en a marre ñoom nag nee nañu Macky Sall maanaam dictature ci boppam la bëgg a dugal nag ci réewum Sénégal ndax ñoom yaana a nee nañu bi ñu testé Macky Sall gis nañ virusu dictature ci yaramu Macky Sall ni ñu lay testé ne gis nañ ci coronavirus noonu la ñu testé Macky Sall gis dictature ci yaram bi Y'en a marre ñooy wax ñoom nag nee nañu jamono ji daal Macky Sall bu insisté lii nga xamante ni moom la nekk danañu jàmmarloo ak moom ba ñu ñu ci lan gi la Témoin nee na attention maan waa FRAPP France dégage ak waa PDS ak opposition bi ñoom ñëpp jug nañ def benn dank kaa gi nee na Adja Sarr am na lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci ay organisation jigéen ñoo xam ne dañu doon xeexal bépp jigéen bu ñu violé waaye nag ñooñu gis nañ ne daal lu ñu nag Adja Sarr ana lan moo ko waral journal bi di na ci jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci organisation yi xeexal jigéen ñi te dañoo nopp ci mbiri nag Adja Sarr yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy association jigéen ñi ñoom nag mbir mii daal dañu seetee yéenekaay gi di exclusif moom nag nee na jamono ji mën nañoo wax ne massage ab délit la ñëpp nag jamono ji na leen leer ne ay Ousmane Sonko lañ ndax li dal Ousmane Sonko mën na leen a dala fan la dem ci salon de massage nekkee délit ci la yéen kaay gi xëy yéen kaay gi di Vox Populi nee na nag Ousmane Sonko niki démb dem na ci bërëbu fajukaay yi doon xool nag ay ñoñam ñi nga xam ne am nañu ay gaañu-gaañu yéen kaay gi dale si ko nee na militant Pastef yi nga xam ne tegoon nañu leen loxo tey jii danañu leen defeere yéen Quotidien nee na wax na nañu accélérer mbir yi nee na bi dañu ko war a fast track na gaaw yéen a kaay gii di Dakar Times nee na am na ay expert yoo xamante ni xool nañu waaye nag nee nañu virus bi daal jógewul ci benn laboratoire yéen a kaay gii di enquête nee am na projet de loi boo xam ne état bu ma ngi koy defar jëm nag ci encadrer li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi yéen a kaay gii di Les Échos nee na ñi nga xam ne tegu nañu leen loxo